ngi nuyu mbokku internet yi di saxoo seetaan seen chaîne bi di dakaar ak Dakaractu TV di leen ndokkeel ci bésug màggal gi nga xam ne ci la ñu nekk yor-yor gi euh, mu fekk ñu nag fii nga xam ne moo di kër Serigne Mouhamadou Arass Mbacké euh, moom mi nga xam ne at mu jot nii la koy defee ah, ci jotaay yu sell jotaay yoo xam ne dina koy faral di amal file euh, ñu to daje fi waxtaan waaye laayante biir. ci liggéey bi nga xam ne Serigne Touba Xadimu Rasul def na ko fi li nga xam ne mooy Touba ak it euh, ci li nga xam ne moo di màggal gi nga xam ne moom lañ ko jagleel euh, du ñu guddal wax ji dañuy tàmbali rek waxtaan bi euh, ndax fekk nañ fi ay góor ah donc chaque année ni lay demee ñu teeruñu fi teral ñu xanaa dañ leen di bàyyee kàddu gi rek ñoom it ñu ñu ñu laaj leen seen gis-gis ak seen position ak. ah donc ni ñu dundee màggalu ren gi nga xam ne mooy édition 2020 salaamaaleykum kilifa gi nuyu nañ la. ñoo ngi lay sant sëñ bi bu baax a baax a baax a baax di la baax. est-ce que mën nañu xam tur sant bi ak fan ngeen bàyyeekoo. man Abdoulaye Dione laa tëkk laa tudd maa ngi bàyyeekoo Dakar waaw Dakar laa bàyyeekoo waaw. Euh, nga ñu fekk la fii kër Serigne Aras euh, Mbacké euh, tey Euh, lan la la def euh, donc bésug màggal gi ci yor yoor gi mu fekk la ci bërëb bi. Mm-hmm. c'est que màggal gi màggalu ren ñëpp xam na dafa nekkoon dans un contexte assez particulier muy contexte Covid 19 képp kuy murit xawoon nga jaaxle ci commencement ndax màggal dina am wala du am mais nag Sëñ Tuubaa wane na boppam tey tey jii ñëpp xam nañ ni Sëñ Tuubaa wane na boppam parce que li ñu gis ci màggal gi rek yàgg naa ñëw màggal de sa fait plus de quarante cinq ans mais ba léegi li mu gis ci màggal gi. masuma ko gis ne quoi lii daal mooy wane ni sëñ Touba hmm, kenn la daal te wane na boppam wane na boppam bu baax parce que man maa ngi njëkk am confiance jour bi sëñ Mountakha xalif général des Mourides waxee yàlla na ko fi yàggal te mu wér bi mu waxee ci affaire màggal gi keroog wax ci affaire Covid 19 bi bon keroog la sama njaaxare ak sama tiitaangi lépp jeex hmm. keroog dafa wax ba pare sax dama gën a fier d'être mouride te à chaque instant aussi dama fier de mu man te man murit rek laa murit laa xam xaw ma sama papa baay Fall la woon maam Cheikh Ibrahima lañ ko tuddee sama yaay murit la woon te ñoom ñëpp ñu ngi leen denc fii ci sëgu Touba yi man murit rek laa doon. ci bërëb bi lañ la fekk bërëb bi ku ko wax tudd señaras Aras Mbacké ah donc di ko xam ne ak jàmbaar la ci maanaam communauté bi. Mhm. mu ngi ciy bay waaram di ci def lu mucc ayib. Euh, euh, lu la jokkale ak moom. sëñ Aras li ñu jokkale dafay dafa yàgg dafay yàgg parce que war na def presque ay vingt ans yooyu waajuram sëñ Fallou mu sëñ Moutala moom lu moo doon sama kóllëre mag mu ko di ñëw suñu kër Dakar dafa ñëw dafa ñëw ba ñun ñëpp ñu jébbalu ci moom man mii di ma wax ni ci sëñ Fallou moom sëñ Moutala laa jébbalu bi ñëw fii màggal gi nag mu jox ñu soxna si soxna soxna ma Marème Bintu ba sëñ Soyibu sox bint Mbàkke mu suñ sowaay muy waajur wu jigéenu aras moom mu féetalu ñu mi moo it mu daan ne léegi mu màggal gi ñëwee da ngeen ñuy ñëw di dal ci man sëñ bi ni léegi man ngeen di dal ci parti bi mu ko réserver quoi ñun fii lañ nekkee ñoo ko aras ñoo màggandoo ba ni muy màggee daal ñu fekke nañ ko lépp daal ko fekkee nañ ci lu bare bare ànd nañ ci lu bare bare bare bare bare ànd moom parce que moom sax boo dee wax léegi fi mu nekk dafa naan yaay sama taalibe bu njëkk yow yaay sama taalibe bu njëkk parce que maa ngi fàttaliku su daan ñëw fii bay war a dem bay war a dellu daara ji sax il faut ma ànd ak moom ànd ak moom ànd ak moom naxanteeg moom naxanteeg moom ba mu pour mu mën a dellu daara ji lu nekk lañ daan àndi di dugg ci marché yi di wut ay dàll pour moom lépp dañ ko daan àndi di def maak ak moom daan mën naa ne daal li mu wax toujours moo ci nekk rek yow yaay sama premier talibé te effectivement man maay premier nit ko man maay premier talibéem daal waaw moom toujours da koy wax mais nag bi ñu ñëwee ci kër gi aussi jox na ma cër bi ak sama mbokk yi ak kii toog di sama sama rak bu jigéen ñun vraiment ak sama waa kër yi jox nañu cër. bon cër bi ñu jox tamit euh, mënoo ko am fenn daal fu du fii vraiment dañ ci bëgg kontaan ci loolu daal moom laa mën a wax ni moom moo ñu boole ak moom boole ñu ak ay waajuram ay waajuram daal en quelque sorte ñoom ñooñu ñoom ñooñu ci moom ay waajuram waajuram mu góor mu sëñ fàllu bu sëñ Mourtala ak waajuram mu jegeen di soxna Marème bu sëñ Souaïbou euh, maa ngi nuyu mbokki jullit yi di nuyu mbokki taalibe yi di siyaare Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal suñu borom may ko gudd fan ak wér-gu-yaram noonu laa ko ñaanal Serigne Cheikh Fall jëmm mi yàlla jëmmal mu toog toogaay maam Cheikh Ibrahima Fall di beral ab nuyoo suñu site bi nga xam ne mooy suñu site Dakar Actu taalibe bu baax na ci bopp bi mooy Serigne Sele di nuyu Cheikh bi ak équipe bu mu àndal euh, defoon nañ ko daaw na fekkee ko ren. faw ñu baaxantal ko ngir mu fekkee ko déwén eh, ñoo ngi fii ci kër Serigne Fallou Mbacké Moussada ànd ak eh, Serif Mohamed Aras Mbacké mi nga xam ne kenn la ci njabootu Serigne Touba di ñaan nag suñu borom guddal aw fanam te ay cëram ba ni mu nama liggéey Cheikhul Khadim liggéeyal ko maamam Cheikh Mamadou Moussada liggéeyal ko sëriñam bu baax bi ci Cheikh Mamadou Fadal ñoo ngi ñaan suñu borom may ko ci ndam mais ko ndam mbooleem koo xam ne aju na ci moom li ko tàmbalee ci isbul xadim gi yëpp su ma tuddee isbul xadim gi ñëpp a ngi ci biir di ñaan nag soxna Mariama Mbacke bintu Sëñ Souhaïbou yal na fi yàgg lool te ànd ak wér comme niñ ko baaxoo defee rek ñoo ngi fii ci kër Sëñ Fallou Mbacke mu Sëñ Mourtala ànd ak Serigne Mohamed Aras Mbacke ku ne xam ne ne la maamam woote woo ma nga kaay leen santale ma yàlla ci teraanga ji ma defal teraanga ji nag tàmbalee ko ci ginaar bi ci gileem man li ma gën a yéem ci ginaar ba ci gileem mooy dañoo ne di safar euh, nga jël tànki xar tànki béy mu juróom-ñett nga boole ci tànki nag muy fukk ak juróom fukk ak juróom-benn nga boole ci tànki gileem ak tànki lépp muy fukk ak juróom-ñett mu tombeek safar di du safar gi nag tombeek sëriñ Muntaxa ba Basiiru aaye ñu koy ñaanam moom mu yàgg fi lool te ànd ak ndax ndamal sëñ Tuubaa la ndamal yoonu murit la moom sëñ Muntaxa wax dëgg yàlla bii ba ma fa demee am na lu ma yéen ci moom yëngatu gi mu yëngatu ndax xam na ni am na ndam li tax mu am ndam mooy bésu tey bii ci la sëriñ Tuubaa jàkkaaroo woon ak noonu yi ci la Serigne Touba jàkkaroon ak gouverneur Ndar ñi bañoon ñëpp moom dong moo ci nangu moom kese moo ci nangu bi ñu demee ba mbas mi amaan ci Sénégal it ñi bañoon ñëpp moom moo ci nangu ñu xam ne sëriñ Touba moo fi ne yal nañu yàlla fayal Serigne Touba. waaw mënuma su ngeen ma laajee mënuma ci bañ a wax lu bari man sax mënewuma wax lu bari. waaw malgré alaaj du Njaay Kumba Rose mu baax mi mooy sama waajur wu góor waaw ah, ñu dippee ma yaayam Kumba Rose Njaay waaw may taawam bu jigéen waaw mu nekkoon góor gu baax ku baax mënu ma toog ci béréb bi nag ngeen tudd ko du ma wax du li ma xam ci moom mu nekkoon waajur bu baax bu bëggoon njaboot ku dimbali njabootam ku tette njabootam teg leen ci yoonu lislaam teg ñu ci yoon wu baax ba moo tax xëy na lii yëpp am tey ngeen fekk ma ci béréb bi nga xam ni ah sëñ Mouhamed Mbacke Aras ah tey moo waral suñu jotaay bii ñun ñëpp ñu xam ko grâce à sama doom jële di maam Sophie Thioune waaw presque moo nekkoon première taalubeem bu jigéen Modou Diop Seck doomi Ami Thioune ak Madd Fall moo nekkoon première taalubeem bu góor ci jamono boobu ginnaaw bi ñu fi fekkee famille jonn jonn bu baax bii nga xam ne ay nit ñu baax lañu ak seen mag ja Ami jonn lañ fi daan dajal ci jamono yooyu waaye daal ma di leen xameel ni leen sëñ Mouhamed Mbacke Aras mii ñun rëccu wuñu luñ ko doon xamee ñun ah rëccu wuñu luñ ko doon xamee non rëccu wuñ ci dara ndax baax ga ak oyof ga ak yëg ga ci nit nitam dafa mën nitam dafa mën nitam ndeysaan dafa am benn jamono mu ñëw sama kër ziar si ma après ma woo papa mu fekk daje fa ak moom bi ñu ñëwee sam papa ma ne ko papa sëñ bi est-ce que dina nangu ko fi kii mu ni ma déedéet sëñ bi dama bëgg laalal ko tuuti la ma defaloon sëñ Fallou ndax sam papa dafa tëggaloon sëñ fallu mu jël galangam ñaanal ko mu ma dama bëgg tëggal seen sëriñ bi ma ne ko kon nag yóbbul indi at sabar yi ba ci oto bi nga bàyyi ko fa ba xam ba ba nga yéeg ñu laaj ko sam papa yéeg nuyoog moom ci sama saal mu ree kontaan xam nga dafa baax mm-hmm. sam papa ni ko waaye sëñ bi yow Mbàkke Bàlla Sobri dama laa bëggoon a defal na ma defal sa maam mu ni ko noo defaloon sa maam mu ni ko noo defaloon sama maam mu ni ko dama ko tëggaloon galangu sabar mu ni ko loolu boo ma ko defalee daf may neex mm-hmm. sam papa daal ni xale yi wàcce leen sabar yi indi sëñ bi toog nii mu toog nii mu daal di jël sabar gi daal di tëgg tëgg tëgg tëgg tëgg ba mu neex sëñ bi ree kontaan daal di nangu galang gi ci moom daal di ko ni teng teng teng ci sabar gi ñetti yoon ni ko waaw góor gi lii kay maa ne na mu li lu mu doon mu ni ko ci de mooy sabar sëñ Fallou ñaanaloon ma ñaanaloon na ma ci damaa bëgg Mbàkke nga ñaan ci mu jël bant bi daal di koy ñaanal moom itam moom sëñ sëñ Mouhamed Mbacke Aras mi nga xamante ni bi soxna maam ma mooy waajuram bu jigéen sëñ Fallou mooy waajuram bu góor muy bette bette nag ci ndey ci baay ndax moom sëñ Fallou sëñ Touba rek moo ko meññ moom sëñ sëñ Mouhamed Mbacke mi mu ay taalibeem di ko tiitaroo nag ndax gis nga bu amee banneex sëñ baa fay njëkk moo fay mujj day ñëw toog bu ñu amee naqar sëñ bi moo fay njëkk moo fay mujj ab sëriñ nag boo ko amee te boo ko soxlaa doo ko gis amul njariñ amul sens dalul dalul suñu sëriñ bi kii dafa mën taalubeem moo tax ñu toog ñun ñii ñëpp sëñ Mouhamed mii dafa mën taalubeem dafa mën a sagal taalu taalibeem bu ñu amee yàlla na yéex dese wala dara day jëli koor bi dakaar indi ko fii denc ko denc bu rafet ñaanal ko togg fii ay añ ñépp fi la ñuy añee mu door leen a yeewu ñu dem. ba pare nag mu toog ba ca ëllëg sa mu ñëw fekk sinu dakaar ñëw assister ànd ak ñun ca banneex ba ba mu jeex ànd ak ñun ca naqar ba ba mu jeex keroog sam papa bi muy bi mu génnee àddina ñu koy denc moo fa njëkk moo fa mujj moo jiitu ca almeer ba moom. sam papa tijaan la woon waaye bi mu ñëwee gis ci mbokki tijaanam yi taxaw dafa def nii xam nga dafa yaru ba ñu def ñoom li ñuy def ba pare mu ñëw daal di mujj ci bàmmeel ba def fa lam fay def ñaanal ko macha allah suñu xel dal na. tur beeg sant bi Lamine Demba. Lamine ñu fekk la fii nga yore euh, li jëm ci wàllu ataaya bi mel na ni yaa ngi euh, waajal gan yi ah, ci ci ci ataaya bi euh, ak bésug màggal gi ak bërëb bi ñu la fekk di kër Serigne Aras Mbacké lan ngay wax ci màggal. waaw xanaa sant yàlla bu baax a baax sant yàlla bu baax a baax sant sëriñ Touba sant yàlla ba yàlla defee murit waaw parce kër gi buñ fi ñëwee dañuy sant Serigne Touba bu baax. dañ naan dañ fi am cër ngir jëmmi ami jonn wax dëgg yàlla sant nañ bu baax a baax a baax a baax bañ yàlla defee ay muri wàllu màggal gi nag dafa bëri ay pàcc yëpp xeetu cant la ku nekk maanaam am na wàll bu mu féetewoo ku nekk maanaam ñaaŋ ñi ñoo ngi fii ñi ñoo ngi fii ñoo ngi fii ñi ñoo ngi jàng alxuraan ñi ñoo ngi berne ñi ñoo ngi jàng xasida ñun tam ñoo ngi ci wàll bi lépp ci màggal bi lépp maanaam xeetu berne bi tamit dafa bokk ci ba ci màggal gi comme sëñ bi tamit bëggoon na ko lii yëpp ñu ngi sant bu baax a baax sant yàlla sant julli ci yonante bi di sant Serigne Touba bu baax wax dëgg yàlla màggal gi ren mun nañ ne màggal spécial la. sant bi. Cheikhouna Dembélé Lastoum. Euh, ban ban euh, gis-gis nga am ci màggal gi en général. màggal gi en général dama jàpp ni sant yàlla la quoi sant yàlla bu baax a baax a baax te di gërëm. Euh, di sant Serigne Touba bu baax a baax a baax a baax waaw loolu dañ ci am ko wax parce que bu ñu yàlla comme nu ko grand bi waxee bu ñu yàlla defee murit ba pare bu ñu defee jullit def ñu ay murit mënuñu lu dul sant fekk ñu suñuy waajur nekk ay murit tamit doxal si yoon bi ñuy ñëw rek topp seen tànk loolu rek la ñu ngi sant yàlla bu baax. am nga satisfaction bu baax. bu baax a baax a baax. magalu sëñ Touba fu ma fekk damay am satisfaction rawatina mu fekk kër si am. loolu rek a ci a am. sa digganteeg bi. sama sama sama sama sama sëriñu yaay la sama sëriñu waa kër la sama sëriñ la man sama bopp sama waajur yi fi ñuy jaaree ku fi lay jaar ak moom bu baax la macha allah yal na ko yàlla may gudd fan ak wér la. nuyu nañ la tur beeg sant bi. salaamaaleykum la soxna Mia bëgg Fall taalibe sa Chérif Mouhamadou Aras Mbacke Mia Aras. Euh, ñu fekk la fi ci bërëb bi ci waxtu màggal gi nii euh, lan ngay wax ci bés bi ah macha allah sant nañ bu baax te wax dëgg yàlla waaw màggal nañ ci jaam ñu ci yor-yoru màggal gi macha allah ñu sant bu wér. Euh, ci melokaan bi ñu leen fekk noir blanc bi ah nu mu demee loo ma ci mën a wax yow. soxna dañoo def. noir et blanc rek waaw ni ko sëñ bi bëggee rek nu mu gën a sellee rek gën a yóbbu tarkaal la. yow da yaay faale ba ci voix bi sax instant yi moom dafa sedd voix bi dafa sedd tellement am de. ndeysaan waaw noonu la ay éléments Chérif Mouhamadou Aras Mbacké nañ c'est normal ay yaay Aras nañ tey magal gi est am nga ci satisfaction. waaw bu baax sax macha allah sant nañ bu baax mbégte rek waaw. jamono ji ku la xool rek. sa xel day sori lool lool lool lool ci ci ci maam Cheikh sori ci la ko askano ñëw ba ci même euh, sang bu tedd bi nga xam ne moom nga takk nii sa ndombu baat bi euh, di sëriñ Aras lan ngay wax ci bés bi. bés bi xanaa ama ci contentement rek comme niñ ko daan amee chaque année waaye bu tey bi daa mel daa gën a yokkooti tey dañoo gën a bëgg ak suñu Serigne rek. ci feemu organisation bi fem bi euh, nirole bi loo leen di waxtaane la seen biir comment ça se passe. waaw suñu biir parce que sëñ bi daf ñoo yar ci déggoo ak euh, mag jiitu kii topp ci ginnaawam xale topp ci ginnaawam ak ci yaatal xol yi nga ne fu toog dañuy mën a defante suñu biir te kenn du dépassé kenn kenn boo waxee ni kii lii la ñuy jënd rek ñëpp lañuy topp ci ginnaawam waaye lépp sëñ benn ci yar. ñu ngi santaat yàlla subhaanahu wa taala julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sant Serigne Touba bu baax di ñaanal sunu xalif général mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal sunu wasila sunu soppee sunu shérif sunu lépp shérif Mouhamadou Aras Mbacke di koy jox wàccuwaayam bu baax di koy ziar te yeesal sunu njébbal ci moom di koy baalu àq bu baax si njuumte yi ak rëcc rëcc ñun soxna Roxaya la ñuy woowee wala soxna Kiya. nekk taalibe bu xeebu sax bu bu bu yees lool macha allah ñëw rek ngir liggéey sëñ Touba. est-ce que bërëb bi mën nga fi fekk ku yees est-ce que bërëb bi di nga fi fekk ku yees. <laughs> bu ñu waxantee dëgg. waaw yàlla moom moo xam doomu aadama waaw waaye nag loo xam-xam masaa Massamba gën la xam boppam ñun moom jàpp nañ ne dañoo yées ñoo gën a yées ci lu yàlla bind bëri bàkkaar lool te sàkku yërmande borom bi ak njéggalam. kon mën nañ jàpp ne Euh, sa teewaay ci bërëb bi ngir ñëw defaru la. waaw defaru waaye it duma ci yam may defare ndax kilifa gi noonu la ko bëggee Chérif Mouhamadou Aras Mbacké euh, du la defar rek bàyyi la nga dem bu la defaree yow yaa war a am ngoru di defare donte nag ñun defaroo ñu macha allah xëy na moom moo ñu bëgg a dimbali rek am fu mu ñu teg xëy na ngir ñuy jàngee. ci mbooloo mi nga xamante ne ñoom la ñuy faral di nekkal ci mbaaxam ak woyafam macha allah. koo xam ni lu gan nga xumb-xumb lu mbooloo bari bari ñaari baat yi rek góorgóorlu ndigalal suñu baram yi wante ndi ku tere yi nag lim koy waxe sëñ Touba daf ko firil boppam dafa wax ni nit ki bu taxawee ñeent tomb rek ko wër li mu bëgg ak li ragal ak li mu bëgg ak li ko suñu borom digal ñeent tomb moo ko wër li ko suñu borom digal bëgg ak li ragal tomb yooyu mooy yi nga xam ñoo ko wër nit ki bu ñeenti tomb rek ko wër lu ko suñu borom digal ak lim ko tere ak li mu bëgg ak li ragal nee na waxtu woo jóge dem jëm ci li la borom digal la nga bëggoon te doon ko wuti day jàkkaarloog yow ni la jarumaa xoole de noo bokk fu nu jëm li nga ragal mu nekk sa ginnaaw da lay wax ni jaruma geesoo bokkuñu fuñ jëm loolu nag moo ëmb àdduna ëmb àllaaxira ndax nit ki lu mu bëgg rek moo fi am ak lu ragal ginnaaw boo jëmee ci la suñu borom digal la nga bëgg di nga taseeg moom la nga ragal doo ko gis lu mat a bàyyi la lu mat a bàyyi xel la sëñ Ahmadou mii nag xale la waaye nag am na lu mu bëgg lam bëgg nag mooy lu baax lu baax nag dafa yombul de boo ko bëggee nag lu nekk daañ la ko jàppe yéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak moom da góor góorlu bu baax a baax te ni mu leen ko waxee rek li suñu borom digle ngeen góorlu ci li mu tere ngeen wattandi ndax sëñ Touba da wax ni bu ngeen demee ba àdduna ak saytaane bëgg leen a jëme ci ludul ba ba ak saytaane bëgg leen a jëme ci ludul yàlla ak yonentam bu boobee nageen ngeen ca delloo seen bopp ca saasa te bu leen ko waaj ndax saytaane kat bi mu gisee sëñ Tuuba mu ni eh, te xam ni digganteem ak suñu borom mënu ca dara mënu caa yàq dara dane na ko ñaawal ni mu koy ñaawale mooy képp ku mu gis meloo na nga war a mel mu ni mu ni la tuddal kee sëñ Tuubaa nag nee na fu nekk te di ma tuddoo na nga farlu ci ñeent yi jàng alxuraan jàng xasida julli julli juróom tey liggéey bu baax nag la ci wax la ca teg nee na jàng alxuraan li tax mu mat farlu boo ko dee def bu nuy lim bu waa kër borom boole la ci li tax bu ñuy lim bu waa kër borom boole la ci loola mat naa farlu jàng xasida li tax mu mat a farlu boo ko dee def bu yi lim waa kër sëñ boole la ci li tax bu ñuy wol lim waa kër sëñ Touba boole la ci loola mat naa farlu julli yi juróom nag daa wax ni santaane buur la santaane buur nag def ko dina tax a jubóog buur te luy tax a jubóog buur lu nekk mat naa parlu liggéey nag lu tax mu teg ca bu baax boo ko dul def lii santaane doo ci mën a def dara kon sëñ bi nee na na ngeen góorgóorlu bu baax ndax àdduna kat lu baax rek moo ci moo ci am solo leneen amu ci solo geen ngeen góorgóorlu bu baax a baax nee na sëñ Ahmadou ñu ngi lay sant wax bu waxtu wu ne ñi nga àndal te sëñ Touba rek a tax ñu ànd ak yow del waxtaan ak ñoom ci waxi sëñ Touba rek waxi sëñ Touba kat moo jariñ kon nag jërë ngeen jëf yàlla la yàlla jàppale te sàmm te dimbali ñu sunu borom mën na ko yàlla na ko def yàlla nag moom bu bëggee lu baax te ngay kilifaam doo man lu dul digal ko lu baax ak ñaanal ko mucc loolu rek la jërë ngeen jëf asalaamaaleykum tàllal leen na ñëpp ñaanal sëñ Fallu mu yàgg fi lool te niñ koy amale chaque année rek euh, dañuy daje fii ci bërëbu sëriñ bi laayante biir ak moom li mu tàmm defal taalibe yi di ñu ko defal ñëw rek ngir waxtaan ak ñun ci solos màggal gi andil ñu it maanaam li nga xam ne ñun moom la ñuy xaar saa su nekk parce que taalibe yi loolu la ñuy xaar ci moom euh, jotaay yi ni mel mu ñëw taataan jële fi li nga xam ne moom la mbëbatoon ba muy sol di di bàyyeekoo ak gox ba mu mënta doon rek ngir ñëw tuubaa donc képp ku fi ñëw tey rek euh, fi nii nga mën a fase sa yëg-yëg ngir rek li nga bëgg yóbbaale nga yóbbaale ko duñ guddal nag duñ gàttal dañuy bàyyi sëñ bi rek moom mi nga xam ne moom mën a waxee moom mi nga xam ne moom la yàlla jagleel mu war a wax moom mu wax li mu li ñu war a wax ñun taalibe yi nag ñu tijji nopp yi dégg li ñu war a dégg te jéem a topp rek jéem a tegu ci yoon bi rek jéem ko déglu waaw ndax loolu mooy suñu njariñ alhamdulilahi waxda wasalaatu wasalaam salaam man la nabiya baad asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bi nu sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën gaa tedd julli sant sunu sëriñ suñu yaakaar tey ak ak ëllëg acheikhul xadim rasul di nuyu mbooleem jullit yépp ak réew mi yépp di jiital ci nuyu boobu xalif général des mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal sunu borom mu yàggal ko fi ak njabootuk Serigne Touba Xaadimu Rasuul yëpp ak mbooleem xalif généraux yi nekk ci réew mi di ñaanal réew mi tamit suñu borom wàcc fi jàmm ba mbooleem xeetu balaa yi ñu fiy dégg yëpp suñu borom musal ci ñëpp ci barkeb alquran ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah xam ngeen ne nag tey ñu ngi ci bisu màggal Touba te moo di 18 safar ana lan moo ko waral ak kan moo ko waral kooku mooy ci ñu fas yéene waxtaane mooy Cherif Mouhamadou Bamba Xaadimu Rasul Cherif Mouhamadou Bamba Khadimu Rasul nag muy sëtub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñaari côté yi waajuram yëpp ndax boo toppee ci côté waajuram bu góor ci càllalaam ci askanam dafay dem ci yonent bi sallallahu alayhi boo toppee ci côté waajuram bu jigéen di soxna jaaratullahi bu Bousso dafay dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon muy shérif ci ndey di shérif ci baay waaye moom jàppewul yonent bi sallallahu alayhi wa maam daf koo jàppe ab sëriñ looloo tax mu wax ne lii baana ann al muntaqa wasilati salla alayhi waahibul wasila leer na naññi ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wa rek moom mooy sama sëriñ ana lan la jàppe yonent bi ndax maam la ko jàppe déedéet jàppewu ko maam nee na huwa nabiyu wa rasulu wal xalil wa huwa al xabibu wal imaamu nee na kooku mooy nabiyullah mooy rasulullah mooy xalilullah mooy xaritub yàlla bi nee na mooy xabibullah mooy soppe bi yàlla bi nee na mooy imaamu imaam yi mooy dalil bi nga xam ne ci la ñëpp di tegtaloo moom noonu la jàppee yonent bi sallallahu alayhi maamam waaye jàppee ko sax euh, noonu la jàpp noonu la jàppee yonent bi sallallahu alayhi wa euh, jàppee ko ab sëriñ waaye jàppee ko sax maam euh, Chérif Mouhamadou Bamba di jaamub yàlla tey liggéeykatub yonent bi sallallahu alayhi wa abdullahi wa xadimu rasuli moo ngi gane àddina ci atum 1853 fii ci senegal ci Mbàkke Bawol moo ngi génn àddina ci atum 1927 moo ngi sanc Touba ci atum 1888 moo ngi dem ci tukkib géej bi ci atum 1800 1895 ci 1895 boobu nag ci la ko colonialiste yi convoqué mu dem cee bureau ba ca Ndar waaye moo ngi ñibbisi ci tukkib géej bi 1902 bi mu ñibbisee tamit taxul tubaab yi bàyyi ko dañ ko yóbbu Mauritanie ci atum 1903 ci la dem Mauritanie euh, moo ngi dem tamit ci yenn Jolof ci atum mille 1907 moo ngi jotee wérdu murit te mooy wérdu maaxuus mooy almaaxuus min allah bi waasitati rasulillahi alayhi rasuli alayhi salaatu wasalaam te mooy wérdu murit mi ngi ko jotee Mauritanie euh, ci dëkk bu ñuy wax Sarsara ci atum 1905 moo tax mu wax ne xam xamdi wa shukri li man kulli bihi soora lahu ridan doona soxtañ inda sorsoora moo ngi ñibbisi si Jurbel ci atum 1912 ñu tabax jumaay Jurbel ci atum 1916 jumaay nja jumaay euh, jumaay Touba tamit sëriñ bi mi ngi ko rëdd ci atum 1927 euh, moo ngi gën a feddali màggalu Touba ci atum 1927 euh, waaye ci atum 1927 boobu ci la wuy ju boroomam dem dëkkaale jeeg boroomam subhanahu wa taala Chérif Mouhamadou Bamba kan mooy waajuram Mouhamad ibnu Mouhamad ibnu Abdullah Mouhamad ibnu Habibullah mooy waajuram bu góor ñi gën koo xam ci Maam Moor Anta waajur wu jigéen mi ngi tudd soxna jaariyat soxna Mariama Bousso jaaratullah euh, Cherif Mouhamadou Bamba melokaanam ñuulul xeesul rëyul gàttul li ëpp ci lim daan sol mooy ay yére yu weex dallu karbat wala dallu nebbi la daa sol ku daan dëkkee julli ak jàng alxuraan la woon ak jaamu yàlla ku bëggoon alquran lool bëggoon yonent bi sallallahu alayhi lool bëggoon yàlla lool te ragal ko lool te daan ko jaamu nag lool bëggoon xam-xam lool te am yërmande nag lool Chérif Mouhamadou Bamba ku maandu la woon sell rafet jikko ku raglu la woon waaye nag ku rafet la woon teey lool noppi lool ku daan bari lu muy tudd yàlla la daan jullu ci yonent bi sallallahu alayhi daan bari la ay istixfaar daan taalif ay téere xam-xam di bind ay xasida di ci tagg yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di digle lu baax di tere lu bon ku bañoon fo ak caaxaan la Chérif Xaadimu Rasul ku bañoon jaxasoo góor ak jigéen la Chérif Ahmadou Bamba ku daan julli guddi yi te daan ci e, bind waaye ku daan woor bëccëg yi la te daan ci jàng alxuraan ku amoon xel mu rafet la woon ku daan méditer lu bari ci yàlla sunu borom subhaanahu wa taala la woon daawul perdre le temps ku amoon kerse la woon ku daan dimbale néew doole yi la woon moo doonoon bàyyi jirim yi waaye ku amoon yërmande ci jigéen ñi ak xale yi la woon Chérif Mouhamadul Khadim daawul neenal neenal jamono saa su ne moo ngi daan def dara diggante timis ak gee daawu ko wax daf ko daan tari alxuraan moom day daawul wokkatu daawul lekk jën daawul yëg benn bu dul plaisiru jaamu yàlla ku bëggoon maamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la woon ay doomam yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa la leen tuddee Chérif Mouhamadou Bamba daawul wor daawul ger te daana yar taalibe yi ci lislaam di leen xamal yàlla ak yoonu lislaam di leen bëggloo yàlla di leen bëggloo yonente bi sallallahu alayhi wa bu daan dox daawul gestu day waaxu rek di dem te bu musaana toog penku lay jublu waaye bu musaana wax nag kàddoom day riir mel na gaynde kon kii moo di Chérif Mouhamadou Bamba xaadimu rasul ñu nekk nag ci waxtaane lan moo waraloon mu tukki sababu xaybati ya anna allaha araada an anaala minhu jaha wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi daw mi li waral sababu tukki bi ne na sunu boroom dafa bëggoon mu am ci moom ay daraja waaye sunu borom dafa bëggoon mu ràmm peuple am waaye sunu boroom daf ko bëggoon a def mu nekk liggéeykatu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon mu sabab voyage bi nga xam ne amoon na mu mel ne dañoo pose ay question Serigne Touba laaj ko waaw kañ nga dem ban jour ban dat ak lu tax nga dem mu ne xarajtu yow ma sabti taamina achar li xidmatil muxtaari fii chahri safar mu ne ne ko kañ nga génn mu ne xarajtu génn naa kañ mu ne yow ma sabti jour samedi ci laa génn ñu ne ko ban date la loolu mu ne tamina achar le 18 ñu ne ko lu taxoon nga génn ñu ne ko lan lan ban date la mu ne tamina achar le 18 ñu ne ko ban mois la mu ne fii chahri safar ci mois de safar ñu ne ko waaw léegi lan moo nekkoon objectif euh, tukki bi mu ne li xidmatil muxtaar ngir liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ne dañ ko posé question ne ko bi ngay dem ana ñoo ndax am na àndal mu ne ah kay asiru maa al abrari xiina asiru wa dhanna al ayda anni hunaka euh, asiru bi may dem day tubaab yi maa ngi dem di voyager tubaab yi jàpp ne ñoom ab prisonnier lañ jàpp te xamuñ ne boobu man maa ngi ànd ak gaay yu baax yi di dem ndax masiir yi maa al axyaari lillahi bin nabi wa maali li a awdu masiru man du ma dox jëm ci kenn ku dul yàlla mun ne boobu maa ngi dox tubaab yi ñi ngi ma jàpp jàpp ne ab prisonnier lañ jàpp waaye xamuñ ne euh, man boobu maa ngi dox ànd ak gaay yu baax yi ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa ci yàlla te man du ma dox mukk jëm ci leneen lu dul yàlla mu mel ne dañ ko posé waat question ne ko ndax bi ngay dem yaakaaroo ku la defal intervention wala sax nga ragal tubaab yi nga jëm mu ne walastu arju amul kenn ku may yaakaar ku may defal intervention ci mbokk yi ci buur yi ci dag yi kenn ñu ne ko waaw ndax tubaab yi nga jëm da nga leen a ragal mu ne déedéet wala axsha ragaluma tubaab yi te ragaluma keneen nag si waa maliki ku dul sama borom ñu ne ko lu tax ragal ko mu ne li annahu jalla yow nii nii wayun jii nii ndax xam naa ne moom moom mooy ki may musal te mooy ki may jëriñ ndax is kuntu eh, eh, in kuntu daa watarin aw kuntu daa wajalin naajaytuhu wa huwa yughnini wa yahmini ni saa yu ma amee aajo wala ma am jàqare dama koy damay déeyaaleeg sama borom subhanahu wa taala te bu ma déeyaaleeg moom dana ma jëriñ te dana ma aar moo tax ne katabtu fil bahri anni laa amuddu yadi ila nasara eh, abidil maai wa ci géej ci ci ci ci ci géej gi laa signé contrat ak sunu boroom ne dootuma euh, bind euh, euh, dootuma tàllal sama loxo di ko jëmale ci tubaab yi nga xam ne duñ dara lu ay jaami ndox ak ban mu mu wax ne addurru wa nafu min arrahmani laysa min albidaani wa suudaani mu ne njariñ ak lor man xam naa ne tubaab bi mënuñu maa jëriñ mënuñu maa lor ndax njëriñ ak lor mi ngi jóge ci yàlla sunu borom subhanahu wa taala laysa minal bidaani wa sudaani du jóge ci ko weex wala ci ku ñuul laysa minal ahbaabi wal wal aada ab soppi mënu laa jariñ ab noon mënu laa jëriñ laysa minal abraari wal fujjaar ku baax mënu laa jëriñ ku bon mënu laa mënu la mënu laa lor munu laa jariñ lu dul njëriñ la day jóge ci sunu borom ba lor ko jóge ci suñu borom rek suñu borom namm ko looloo tax man sama xel dal bi may dem ci voyage boobu noonu daal di wax ne man zanna gayra allahi yoon yi aw yadur fa daaka fi daarayni du kaddin wa dur ana képp koo xam ne nag da ngaa njortu ne am na kenn kuy jariñ ba kenn kuy lor ku dul yàlla kooku moom àdduna ji ñu nekk moom problème rek nga fi am doo jug mukk ci problème ñu ne ko waaw léegi tra tracé ñu tukki bi fan nga jaar mu ne ay yassa minni llahu inda jeewali iblisa isna daytuhu bi li daani bi ma demee ba tollu euh, jeewal muy tund jeewal foofu nag laa déeyaaleeg sama boroom ci turam bi ñuy wax yaa waliyu bi ma déeyaaleeg moom connecté ak yàlla ci turam bi ñuy wax waliyu ci lay yàlla nag nërmeel iblis naaguloo ko ci man nga xam ne iblis nag ci la naagu xam ne jaamub yàlla bii moom mënatuma ci moom dara moo tax sëñ Tuubaa wax ne naajeytuhu bi yaa nasiru yaa wali kafayta ni iblis inda jéewali maa ngi déeyaaleeg sama borom ci ñaari turam yi muy na muy muy muy nasiru yaa nasiru ak yaa waliyu ci la communiqué ci la connecté ak yàlla ba yàlla daal di naaguloo iblis iblis xam ne mënul ci man dara loolu boo delloo ci alxuraan di nga gis ne inna ibadi laysa laka alayhim sultaan la ko euh, sunu borom iblis kon loolu day daal di dugg ci loolu ñu ne ko bi nga jógee ndar foo jëm mu ne ndakaaru mu ne nafa li xayri llahu fi ndakaaru kulla azan li jarrahu makkaaru ba ma demee ba dakaar nag ci la ma yàlla musal ci mbooleem xeetu lor ak mbooleem xeetu pexekat yi nga xam ne ay yàqkat lañ foofu la ma yàlla musale ci ñoom nga xam ne fa laa mucc ci ñoom ñu ne ko bi nga jógee Ndakaaru foo euh, euh, fa la tubaab yi jëmee mu ne ci biir gaal gi lañ ma dugal ci biir bato bi ñu ne waxal mu ne allamani rahmanu fi safina waaye bi ànd na nii xadimu dil madina ci biir bato bi nag bi ma yéegee ci biir gaal gi ci la ma sama borom xamal ne yow mii kat yaay liggéey yaay liggéey katub bi sallallahu alayhi wa sallam bata bi dem jaar Conakry ana lu xew Conakry mu ne barra anillahu lada Conakry min kulli jalibil ilal manakiri barra anillahu lada Conakry min kulli jalibin ilal manakiri mu ne bi ma demee ba àgg Conakry ci la ma sunu boroom nag setale ci lépp loo xam ne dafa may jëme ci euh, euh, ay manakir mooy lépp loo xam ne lu yàlla ciblé waxantuma ak lu xaraam ci la ma yàlla setal ci lépp tanha anil fahshaa'i wal munkar lépp loo xam ne ay manaakir la ci dama ci yàlla musal ci foofu ci euh, Conakry mu ne Karambasa azhaba anni llahu fi Karambasa qablu mubaarizi wa anni xalbasa mu ne ci Karambasa nag ci li ma yàlla dàqale mboolem koo xam ne da nga pour taxaw bëgg ak man bëgg ma faagaagal bëgg bëgg doon sama noonu ci Karambasa ci la ma yàlla fégale mboolem koo xam ne danga nga taxaw pour léewatoo ak man ba ñoom ñëpp daal di daw moo tax mu ne nag euh, biraazu man baaraza nii biraazu man yu baar euh, yu baarizul muntaqi man baariza man mu ne képp kuy léewatoog man na nga xam ne amatoog man affaire yow léegi yàlla ngay léewatool te kuy léewatoog yàlla nag dëkk nga mbër mu rëy rëy ñu ne ko waaw lan moo xew euh, Libreville mu ne yasari lil muna la daal Libreville la daal Libre Vallée moom moom la ñuy jàng mooy waaye Libreville la yasari lil muna la daal Libre Vallée man qaadali ma xaaba an kulli wali mu ne ci Libreville Libreville fala ma yàlla yombale la nag moo leen mbébét boo xam ne doon naa ko sàkku ci yàlla fala ma ko yàlla yombale la waaye yàlla yëmut ci loolu euh, man lii ma xaaba an kulli wali mboolem li wàllu yëpp wali suñ borom yëpp lañ mun a am ca Libreville la ma ko suñ borom joxe ma téye ko sama sama loxo man Sëñ Tuubaa moo tax mu li qaada ahla badril usooda man zahzahal waashiya wal xasuuda yàlla wammatal na ma waa ahlu badar waaye daqal na ma jaxasakat yi ak rambajkat yi mu ne yaquudu li xaytu akunu llahu tabshira laa ilaha illa allahu yàlla wammatal na ma mbégum laa ilaha illa allah ma mën a nekk damay bég waaye maa ngi béggee nag ci laa ilaha illa allah wax ne it saaqa li gayri llahu fi maa yumba maa saa maa wa alal janba mu ci maa yumba nag ci la ma yàlla fegale mbooleem loo xam ne danoon naqari sama xol ba léegi amatuma naqaru xol ba ci Mayumba googu nga xam ne falaa laa nekkoon sampoon fa ay bant bëgg faa def jumaa ñii ñëw di ko jël bant yi di ko sànni ci la ma yàlla defale nag wa alal janba faye ma ci jumaay njaareem ak mbooleem jumaay yi ci topp yëpp ci la dal di amee moo tax mu ne lillahi qad wasaltu inda galwa wasaane ni amma yuzurul balwa mu ne ca galwa nag falaa laa àggee ci yàlla dëgg-dëgg àgg ci yàlla ci la ma yàlla ñoŋale nag musul ma ci mbooleem musiba yi ñu ne ko sa tukki bi ana loo ci amee mu ne jaalta sayri fawqa hajji wa jihaad fi ajri wal yumni wa fi kulli rashad yàlla def na sama tukki bi ci barke ak tuyaaba moo kawee sax ak ak ak ak moo tax mu ne nag comme tukki bi noonu la demee ak loolu la ko ci yàlla faye moo tax mu ñaan yàlla ne ijaal rujuuhi rujuuhi ila qawmi saadatana wal takfina yawma jamil xalqi nirana mu ne yow yàlla voyage voyage bi nga xam ne moom laa doon def bu may retourné tour euh, retourné retourné boobu may tourné di delluwaat sama peuple na nekk seen ko texe ñoom ñëpp nañ nañ ci jaare taxe te nañ ñu fegal euh, bis bis penc nañ ñu nañ ñu fegal ci sawara moo tax mu ne lii kun bi kun sarmadan wajaal masiriye da jew fal fara lil wara mislal maharini mu ne yàlla nang ma nekkal ba faw te sama voyage bii ma voyagé woon nang ko def mu nekk euh, di njariñul min mbindeef yëpp ma ñëw ci màggal màggal nag boo ko dee bind da ngay bind miim keef laam miim gi mooy nekk mawlidu nabi mooy guddi Yonent bi sallallahu alayhi keef gi di nekk kanzu rajab laam gi di nekk laylatul qadri kon day mel ne ñetti gudd yooyu ci lu ñu sunu borom sunu borom dimbalee ci barkeb Sëñ Tuubaa defal ñu ko nga xam ne day mel ne boo ko màggalee boo màggalee màggal bis bi màggal nga am nga tuyaabay euh, bis bis boobu yëpp. ana lan moo waral màggal mooy santale Sëriñ Tuubaa ci may yi nga xamante ni sunu borom may na ko ko. Euh, sant suñu borom nag dafa war ashukru walhamdulillahi waajibun ala kulli muslimin wa muslima dafa war ci bépp jullit ndax xeeti cant yi ñeent la hamdan qadim lil qadim hamdan qadim euh, lil hadis hamdan hadis lil qadim hamdan hadis lil hadis sant gi yàlla sant boppam ak sant gi yàlla sant nit ak nit ñi sant na gi ñuy euh, sant gi yàlla sant boppam ak sant gi yàlla sant nit ak nit ki sant gi mu sant yàlla ak nit ñi sant na gi ñuy sant da seen biir lépp day delluwaat suñu borom subhanahu wa taala moo tax alxuraan wax ne fadkuruni adkurkum washkuru li wala takfurun dee leen may fàttaliku ma leen di fàttaliku man yàlla euh, te ngeen may sant te bañ maa weddi suñ borom waxaat ne i'malu ala ala daawud shukran yéen waa kër daawuda jëf leen ngir sant ma suñ borom waxaat ne washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun sant leen euh, euh, bu fekkente ne yàlla rek ngeen di jaamu jaamu googu na ngeen ciy boole di ko sant moo wax ne it maa yafalu llahu bi adabikum in shakartum wa amantum wa kana allah shakiran alima mu ne yàlla du mbugal mukk bu fekkee yéen a koy sant te ngeen gëm ko yàlla du leen du leen wàccee mukk am mbugal ndax yàlla shakir la alim la moo tax mu ne la in shakartum la azidannakum bu ngeen ma sante rek ma dolli leen waaye wala in kafartum inna adabi la shadid bu ngeen ma weddee rek dinaa leen mbugal moo tax yonent yàlla Suleymaan di ñaan di wax ne rabbi awzi'ni eh, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya yow yàlla nag ma may xéewale ma ba ma mën laa sant ni ma la bëggee sant moo tax alquran wax ne in takfuru fa inna allaha ganiyun ankum wala yarda li ibadihi alkufr wa in tashkuru yardahu lakum mu ne bu ngeen weddee sunu borom day yàlla ku omal la soxlawul kenn te yàlla nag du gërëm mukk jaam ñi nga xam ne dañoo jaam ñi nga xam ne dañoo dañoo weddi ñoom duñu am ngërëmul yàlla mukk waaye bu ngeen sante yàlla rek yàlla gërëm leen mu ne wala qad aataynaa luqmaana alxikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama waaye wa man fa inna allaha ganiyun hamid luqmaan yàlla joxoon na ko sasage mooy xikma ba mu ko ko joxee lan la ko wax santal yàlla ndax ku sant day sant gi sa bopp la jëm waaye boo weddee weddi googu ci sa bopp lay daal delluwaat moo tax yàlla wax ne it balillaaha faabud wa kun mina shakirin jaamu leen yàlla euh, te ngeen sant yàlla yàlla wax ne it inna allaha la du fadlin ala nnaas walakin akthara nnaas la yashkurun yàlla day ku defal ngëneel doomu aadama yi la waaye nag ci nit ñi duñ sant yàlla moo tax wa in tauddu niamatallahi la tuxsuha yàlla nee na xéewal yi ma leen defal yëpp bu ngeen ko doon lim munu leen munu euh, xéewal yi bari na bari waay boo xam ne munu leen koo takk munu leen koo lim kon leen rek ngeen mën a def mooy wa amma bi niamati rabbika fa hadis xéewal yooyu yëpp dee leen koy dee leen ci sant yàlla sunu borom subhanahu wa ta te te di ko waxtaane te di ko sant moo tax Serigne Touba Cherif Mouhamadou Bamba Khadimu Rasul wax ne chukru ilahi xaana fi turabi baada jamili sabri Cheikh Drabi mu ne sant yàlla ci sama ci sama suuf ci sama réew jot na sëkk nag ci ginnaaw muñ gu rafet gi ma muñ euh, ci tumurankel gi ñu ma tumurankel mu ne nawaytu shukraka fi dal yow mi yaa somadi yàllahu dal ayna qabla qabla rai wa chiini mu ne yow yàlla yéene naa sant la ci bisub 18 safar bii euh, yow mi nga xam ne yaay borom aras mu ne shukuri wa ridwani wa hamdi li naafiin atani bi quranin azimin muazimi mu ne samay sant samay gërëm yëpp rek jëm na ci yàlla mi nga xam ne mooy aji jariñe ji nga xam ne moo ma jox alquran mu màgg mu màgg bi nga xam ne dañ koo màggal mu ne rum naa shukura lazi bil kaafi wa nuuni maa shaa yafaalu min baadi wa maknuuni mu ne sàkku nañ sant yàlla mi nga xam ne boo déggee alkaaf wa nuun mooy kun baatub kun la jëfandikoo mooy kaaf wa nuun mu ne ñoo sàkkoo sant yàlla mi nga xam ne ci baatub kun macha ay yafaalu ci lay defee lu ko neex min baadin wa maktuunan ci lu feeñ ak lu nëbbu mu ne nawaytu lahu shukran kathiran kama xama kama xama janaabi wa astakfihil yawma yawmal jawal lahba mu ne yéene naa sant yàlla lu bari bëri euh, euh, ci mbir yu bari bëri ci nga xamante noonu la ma euh, aare samay samay côté yëpp te maa ngi sàkk ci mu musal ma ci sawara mu ne achiinu mojamatan wal kaafu war raau lir raai wal baai huwal baau war raau xoolal loolu li mu yéemee mu ne achiinu mojamatan bu ñu waxee achiin mooy mooy mooy chiin gi nekk ci baatub achukru baat boo boolee boo boolee bayit lay jox achukru mooy achiin wal kaafu war raa boo ko boolee da lay jox achukru mu ne lir raai wal baai raa ak baa boo ko boolee mooy rabb ñeel na mu ne achukru li rabbi ñeel na yàlla yàlla mi nga xam ne waxuwal baa waxuwal baa war raa mooy albar boo boolee baa ak raa moo lay baa u waxuwal baa u war raa ashiinu kaafu war raa lil raa i baa i raa mu ne ashukru eh, daal ñeen la yàlla mi nga xam ne mooy buur bi te mooy aji baax ji moo tax mu ne qultu li shukrin wa atadni allahu barrun wala ayaadi shahida maa ngi wax nag ngir sant yàlla mu baax mii nga xam ne moo ma jox ay xéewal ak i njariñ yu bari te yooyu moo jox ak njëriñ yooyu euh, baaxam euh, baaxam googu xéewalam yi seere la ci kon nañu xam ne lii mooy màggal sant sant yàlla rek la kon Chérif Mouhamadou Bamba Khadimu Rasoul nee na màggal Tuuba bu ñëwee nañ ko ci sant la yàlla ci jàng ak berne di wàcce ay kaamil baril ay salaatu ala ak ay istixfaar ak ay taxmidaat ak ay tasbihaat tey bernde nit ñi ci lépp lu neex te dagan yaatal kër yi ak xol yi euh, dalal gan yi euh, yéen ñi nga xam ne tamit yéenay ñëw Touba euh, ngeen di moytu fi andi benn comportement boo xam ne sëñ bi daf koy tere mboolem jikko ju ngeen am rek bàyyi ko fa ngeen ko mën a bàyyi daal bu dee ca tëngeej yaa nga xam ngeen di jógee yi ngeen di jógee ngeen bàyyi ko fa bu ngeen ñëwee bu ngeen ko fa mënee sax bàyyi bañ koo jëlaat ngeen ngeen bañ koo loo xam ne sëriñ bi daf koy tere ñu xam ne ñun ñëwuñu màggal ndax ndax faw wala wala wala noos màggal bisub sant la bisub mbégte la bisub euh, sañse la màggal mooy feetu képp koo xamante ni mbégtam Serigne Touba mooy sa mbégte te Serigne Touba dafa wax ne fa kullu man xadama ni aw zara fa najjihi waxfir lahu aw sara na nga euh, euh, na nga képp koo xamante ni liggéeyal na ma wala mu déplacé wu bàyyi itam yëpp ñëw ziyaara si ma kooku na nga ko musal te nga jéggal ko ci te nga jéggal ko ay bakkaaram Serigne Touba nag ana tukki bi yan njariñ la la ci amee lan la ko ci yàlla fayee nee na zimaamul wara asri asri ladallaahi fi yadi ma umarumtuhu min malikil xaada bil an yi nosug mbindeef yëpp mi ngi sama loxo te man lu ma lu ma soxlaate ci yàlla yàlla jox ma ko mu ne dallani ala muhammadi wa qaadani muhammadin li samadi damaa jug def direct ci yàlla yàlla joxoñ ma yonente bi ne ko man am naa porte ku a ñëw ci man da ngay jaar ci porte bu ma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax bi sallallahu alayhi wa sallam ma ba ci sunu borom subhanahu moo tax moo wax ne jaawastu naas wa ma fi aydi naas ila rabbi naas wa lamma wasaltu ila rabbi naas ataani nafa naas wa kafaani dura naas dama jéggi nit ñi bàyyi leen ak li nekk ci seen loxo jëm ci borom nit ñi ba ma àggee ci borom nit ñi mu jox ma njëriñul nit ñi ak euh, mu jox ma njëriñul nit ñi musal ma ci lori nit ñi moo tax mu wax ne wallahu yansuruni wal xalqu tatbauni fil barri wal bahri za nafan bila darar mu ne yàlla dimbale na ma te mbindee fii dinañ ma topp ci géej gi ak ci jéeri ji ndax man maay za nafan bila darar njëriñ lu ànd ak mu ne xulubu alladina aflahu xulubu jumlati alladina aflahu liyatawajjahat wa rabbil muslimun mbooleem xooli ñi nar a texe ñëpp danañ jublu sëñ Tuubaa waaye ku ku nar a texe rek dangay bañ sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa mel ne yow moo mooy ki lay waaye ku nar a rek di nga bëgg sëñ Tuubaa mu ne sama maqaama nag man sëñ Tuubaa kenn mënu ko xam mu ne raaba maqaami an siwal baaqil xadim kenn mënut a xam sama maqaama nazaani min al waral baaqil xadim waaye nag allamahum bi annani abdul xadim man yàlla daf maa génne ci mbindeef teg ma ber ma nee waaye xamal mbindeef yi nag ne leen kii moom génne naa ko ci mbindeef waaye nag euh, moom moom laa jox mission mu mu war a liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam war a yaatal lislaam wala feeñal lislaam moo tax moo tax mu ne darajati taalu sa tan xafit wa man naxaa minal wara xafti xofit mu ne sama daraja ku na te dootul suufee képp koo xam ne sa intention nag mooy suufeel sama daraja kooku na nga xam ne yow yàlla ci boppam moom moo lay suufeel moo tax mu ne bee taallaqa alladina aslamu min jinni asri doona man lam yuslimu mboolem jinne ju gëmoon yàlla ci jamonoom nee na ñëw nga jéblu ci man man sëñ Tuubaa jinney ju jinney jullit yëpp nee na ci jamonoy sëñ Tuubaa ñoom ñëpp ñëw nañ nekk ay murit ñëw jéblu ci man mu wax ne ne fa kul man bee taallaqa naja min kadari dunia wa fa yawmi naja képp ku jéblu ci man man sëñ Tuubaa te jéblu googu di dëgg ci yow nee nga mucc nga ci problème yi àddina ak alaxira wax ne it ne waccu alladi yuhibbu ni yabyaddu yow ma wajjohi shohoda tabyaddu képp ku ma bëgg Euh, bu ëllëgee yomul xiyaam bu xar kanami soxoda yi bu bu bu bu leeree rek yow mi am cofeel ci man sëñ Tuba sa xar kanam dina leer ëllëg yomul xiyaam wax ne it ajuru lazi naazaani walam yatub ta tadum fi umil kutub euh, fayu ki nga xam ne daf maa soxore wala muy wala muy xëccoog man nee na kooku mooy ak texe di guñ bind ci ndeyi téer yi moo tax sëriñ Tuubaa wax ne ila yaqadallahu ma lam yakuni wala yakuna abadan li mumkini suñ borom daal jox na ko loo xam ne mosu ko jox kenn te dootu ko joxati kenn wax ni wax ne it ne law alima annaasu ma huna la baaduru law alima annaasu ma huna la baaduru ila talabihi walakin lamma jahiluhu talabu ghayruhu nit ñi dañoo xamul li nekk ci man ak li ma yor waaye buñ ko xamoon danañ bàyyi ñëpp ñëw ñëw ñëw ñëw jël si ko bàyyi lépp ñëw jël si ko waaye ñàkk koo xam a tax ñu bàyyi ma fi moo tax mu wax ne euh, lii xutta ma faaqa bihi l jilaani alayhi ridwanu lazi alaani mu ne la nga joxoon Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani jox nga ma lu ko kawe lii ilay xutta ma bihi abul hasan faaqa bi bi xidmati nabi jaddil hasan la nga joxoon abul hasan liggéey gi ma doon liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam faye nga ma ci lu kawee la nga joxoon abul hasan mu ne tammamtale bi ma bihi tijani faaqa wa kuntale bil marjaani la nga joxoon si ahmad tijani euh, ci liggéeyal bi ma doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox nga ma lu kawee la nga joxoon si ahmad tijani kon mu mel nañ ñii nga xam ne ay góor yàlla lañ te Cheikh Abdul Xaadir Jaylaani Cheikh Ahmad Tijaani Abul Hasan ash di ay boroomi may di ay boroomi cër am ay cër yu rëy ci yàlla Sëñ Tuubaa nee na la leen la may yeleen suñu borom joxoon moom suñ suñ Sëñ Tuubaa nee na sunu borom jox na ko lu kawee lam leen joxoon ba mujjee na ko def sax wa kuntali bil marjaani mu nekk wurus wurus wu marjaan ci seen biir kon Sëriñ Tuubaa daal ci gàttal nee na amara ni rabbi bi an usarriha bi an usarriha bi anni maladun wa mafzahun nee na yàlla ma digal ma oote leeral nit ñi ne man ab laqatukaay la ab wéerukaay la fa man aradal xayra fi kilté daareen nag fa leelus bi képp ku bëgg yiwu àddina ak alaxira na nga ñëw jébbalu ci man kon Chérif Ahmadou Bamba nee na ngeen di jaamu yàlla ta moytu ay tereem ndax nee na yàlla day kuy tuub lay jégal kuy muñ lay jox ndam ku am teggiin lay jox barke waaye kuy sant lay dolli Chérif Mouhamadou Bamba nee na bàyyi fen moo gën jàng alquran sàmm say cër moo gën dëkke koor fàttali ko àllaaxira moo gën fanaanee julli bàyyi mooy moo gën dëkke tuub digle lu baax moo gën baril sarax digle lu baax moo gën baril sarax tere lu ñaaw moo gën dëkke ñaan Chérif Mouhamadou Bamba nee na yowmal xiyaam dinaa baal ñëpp ba mu des ku yàq sama der taalibe yi ne ko waa Mbàkke ku xam di yàq sab der ak lan mooy yàq sab der Sëriñ Tuubaa ne yàq sama der day mooy kuy oote woone ci man nga bokk di ma tuddoo te doo def mukk li di digle doo bàyyi mukk li yàlla di tere nee na kooku mooy yàq sama der te yow yowmal xiyaam dina baal ñëpp ba mu des moom Sërif Mouhamadul Xadim nee na ku xam ci yàlla dara doo ko moy ci dara koo xam ci àddina dara doo ko fàggul dara ndax dara fi des ku xam ci ku xam ci àdduna dara ku xam ci yàlla dara doo ko moy ci dara koo xam ci àdduna dara doo ko fàggul dara ndax dara du fi des ku xam ci àllaaxira dara doo ko faggul dara ba naw ko ndax dara du fa doy sëri Sërif Mouhamadou Bamba nee na na ngeen moytu tooñ ndax kuy tooñ du mucc ta koy fay du noppaloo nee na it àjjana joo xam ne lu la neex def lu la neex wax aw ma ko man sëñ Touba ku ko dégg fenn booy ba nga dem fa Sëriñ Touba nee na na ngeen bépp julit bu bëgg a mucc ci àddina ak alaxira nanga boole juróom-ñeent yi ragal yàlla ragal ku ragal yàlla ragal ku ragalut yàlla bàyyi lu bon bàyyi ku bon bàyyi fu bon lu ngeen xamul bu leen ko wax lu ngeen mënul bu leen ko def lu ngeen moomul ngeen maandu ci kon nag ñi ngi sant mbokki taalibe yëpp ci euh, bisu 18 safar bi rawatina yéen waa Dakar Actu ci seen liggéey bu rafet bi nga xamante ni def ngeen ko ñëw ànd ak ñoon ci màggal gi euh, di jiital ci cant googu seen kilifa muy euh, sëriñ wàcc ci Sëriñ Mbay mu tegal ñu ko nag ci mboolem personnel personnelu Dakar Actu bi yëpp di leen gërëm di leen sant di sant nag mboolem taalibe yëpp ndax gis nañ taxawaay bi nga xamante ni am nañ ko ci màggal gi ak ni ñu àndeek ñun ci màggal gi sant nañ ñëpp ñi ngi ñaan sunu borom mu defal ñu jàmm mucc xéewal sutura barke teraanga ak mujj gu rafet wasalaamu ala man ittaba al huda wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf